ma ne ci ndigalal sëriñ Bass Abdou Khadir mi sëriñ dink dénk bu dëkk bi luñ fi wax mu di ko wax luñ fi def mu war di ko war a def benn bànqaas boo fi nekk muy sëriñ Amsatou Diakhaté yilif Touba Mosquée Touba Mosquée googu yilifaat ay ay quartier yoo xam ne mën nañ 40 40 yooyu man moo bokk ci 40 yooyu képp man mii bokk dugg ci 40 yeeg di sous délégué en tant que sous délégué de quartier na fukki délégué de quartier ak juróom-benn ginnaaw bu du gërëmee ñi leen yebal ak Abdoulaat Ka mi nga xam ne lu fa waay def way laa nga di ko wax ci ndigalam nga koy jaare ndax boo ko ci jaari wuti mën na bañ sotti ndax ko fi def dara te jaari woo ji moom itam la ngay def bu ci taxawul loola mën na bañ am kon ci kàddoom ak sëriñ bas Bass Abdou Khadir kàddoog Serigne Amsatou Diakhaté Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne Serigne Mountakha moom la dénk lii Touba lu fi waay di def way laa nga di wax ci njiital Serigne Sidi lay doon teg ci Serigne Bass ñi waa ONAS yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ci li nga xam ne moo leen tax a jóg lii nga xam ne moom la moo di ay teewoo yu jël yu mag yoo xam ne dañ ko tëral mu tëdd ci wetu tëli bi te jóge fële ci côté Ngélamu loolu la ñu bëgg nit ñi xam ne tërël tëdd gi mu tëdd ci wetu tëli bi bépp jafe-jafe bu leen indil jafe-jafe boobu na ngeen xam ne bu ngeen demee ba mu sotti dina leen indil yomb yomb boo xam ne ak njëriñ loo xam ne dina tax lépp lu leen yàqalan ci tëdd gii mu fu tëdd ba mu leen aw ci mbedd yi la ngeen ciy jëriñ ca kanam mooy ëpp li mu lim leen yàqal ko si néew ci fu ngeen deew ndax loolu amul solo ci kaw yàqal boobu sax yàqal gi amul solo ndax ñi ngi fi ges ci mbedd mu mag moo xam ne oto yi bari ñu ma fay jar ñu wàcce ko ba mu xóot ba mën faa jàll su doon dañ ko bàyyi woon noon rek mu continuer fii nu taxaw di forage ndaamaat bi ci yoonu yurul bu demoon ba fa mu jëm te defuñu ko noonu kon day ubbu day mel ni bu ubbu boo xam ne yow doo fi mën a dugg kon boo amee soxla ci li jël fii di am jafe-jafe waaye ñoom ñi nga xam la ne ñi ngi ñi ngi koy gas di ko wàcc ba fu ñu fi wàcc mu xóot des na fa man a jéggi loolu moo leen tax a jóg di leen gërëm nag di gërëm seen kilifa yi leen yebal te di leen sant suñu borom di leen ñaanal suñu borom defal leen wér ak le ba yéen ji ngeen am suñu borom may leen kattan ba ngeen defe ko ni nga xam ne noonu lañ leen ko sant fii Tiwaawan fi mu fi traversé ci biir Touba Mosquée rek laaw bi mu jógee génnu Touba Mosquée parce que fi mu ne Touba Mosquée tëli bi nga xam ne moo génn ci jumaa ja romb kër sëñ Ablaat wuti kër sëñ Cheikh Ndigal dem Euh, wuti Mbàkke foofu la foofu la Touba Mosquée yem tourné jëm nii ba nga xam ne teewa bi tëdd lépp ci biir Touba Mosquée la tëdd ci biir Touba Mosquée nag li mu fi tëdd ci ay quartier yom mu romb kim ci romb Mataan Ñang la moo Sarr ak euh, Ngondu Jaw mi nga xam ne ngelamu gi nga xam ne fi la ñuy gase euh, fi mbànd mi foofu mooy quartier am ñetti ñii la traversé ci ñoo xam ne su ngeen déggee sama wax ji ngeen wax ñi nga xam ne ñoom ngeen boot wax leen ne lii lu ngeen bi gis ci nuru lu ngeen yaakaar ne day yàq yàq googu dama leen ne mën naa jur ak defar ca kanam boo xam ne gi mooy ëpp ndegam yàq na defar googu mooy ëpp yàq gi loolu rek la fi traversé waaye beneen quartier parce que dugut guy mbind dugut xayra dugut daar mar nan teew bi ci Touba mosquée rek lañ ko jaarale mu jëm mu jëm kër kàpp ñi mu tàmbalee di ñaan suñu borom dimbali nu dimbali ko ba ni mu ko yéenee defee mu defee ko noonu su ko defee noonu suñu borom ci boppam li li mu yéenee def leen benn bu dëgg boo xam ne mëneesu koo wax weesu ci dëgg ma wax leen ko carrément su sooy boo mu jàll fu ne ci biir ndox mi muy taw nii ku la wax ne mën naa ko di di ku dul yàlla moom nee ko waxu dëgg man ngaa jël ay oto defal leen gasoil ñuy wiide laat ka mën naa jëlee oto def ci gasoil wala keneen def ko muy wiide ab taata taata boobu bu ko wiidee ba wàcc waa su su ngoonee bu ca tawaatee nu muy melaat du mel na melan bu muy wiide noo ngi ñaan suñu borom ci màggal gi nga xam ne borom du wax lan koy màggalal léegi ci ñii fi ñëw bëgg mu defaru ngir ndo taataa yi nga xam ne moo ne ci dëkk bi ñu bëgg mu wàññi ko do do suñu borom moom mooy xamal boppam la muy def moo koy def tam nag te lu def moo gën ci ñun te dina wàcc nga defee ne gis ne dalaa yàqal fekk na yàqalu la ndax ndox moom yëpp ñëpp xam nañ ne kéewal dong la waaye ñii nag li liñ jublu ci seen ñëw gi mooy fexe ba ndox moomu dem ba ñuy magal si màggal si jam ba ba genn gàllankoor ñu bañ ko am ci ay ay taata loolu loolu la ñuy ñaan di leen ko ñaanal tamit. bi fii na projet bi mu ngi tudd travaux de drainage des eaux pluviales de la ville dans la ville de Touba de la ville de Touba léegi euh, projet bi def nañ fi ay dalo conçu nañ ay dalo en béton armé boo xam ne dalo yoo xam ne am nañ huit kilomètres de dalo léegi dalo yi yëpp bassin gëlëmu lay dem ésutoiram léegi exutoire ah, bi nag si la ñuy installé ñeer euh, trois trois conduites boo xam ne ñaari 630 la ak benn boo xam ne PSD 400 lay doon on a déjà installé le PSD 400 léegi mu des euh, ñaari 630 mais instant yi ñu ngi en train de euh, de de souder beneen 630 bu si des boo xam ne longueur bi 7,6 kilomètres lay doon léegi nag. ak rythme bii nii euh, du matin au soir ñii liggéey léegi nag euh, avec ce rythme là fii euh, yaakaar naa incha allah fii ak le 15 août soudure yi dinañ pare. population bi moom nañ dalal seen xel ndaxte lii lii njëriñ rek la ndax quartier yi naan Ngiraaneen Ndaamaatu quartier yi naan Kër Ñang yëpp xam nañ ni foofu ay point baa lañ léegi nag canal foofu nag dañ fa gën a accentuer. pour euh, dimbali leen pour génnee seen seen ndox génnee au plus gaaw foofu noonu.